alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu o ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba mu mottali mbooleem naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yépp naal nañu ko te naal ay naalam àggale ko te ànd ko mboolem jullit yi ak taalibe yi di nuyu mbokk yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi moo ngi leen di nuyu bu baax di ko tàmbalee ci njabootu Serigne moor Samb gi nga xam ne xàmmee nañu leen ñuy jaarale ci ñoom ab nuyoo di ko jaarale ci Serigne Amdi ak Serigne Chouaïbou kilifa yu baax yi fi nekk yépp sëriñ Assane noo ngi leen di nuyu baax di leen ziar di ziare Baye Mor mi nga xam ne mooy boroom kër gi di ko ñaanal yàlla ak wér ak fan wu gudd ak tawfiq ba li njaboot gi yéene lépp ci moom ñu yeggale ko te mu fekke ko te tal ko di nuyu it njaboot gi yépp di ko jaare ci sëriñ Cheikh di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla suñu boroom kàttanal ko te dëgëral ko ñaan yeeg wax yu baax yi nu wax yépp yàlla ko suñu boroom nungu def ko ay yiiw def ko ay tiyaaba te dox seen diggante ak cat di nuyu sëñ Maramata Silla moom it di ko ziyaare bu baax di ko jaajëfal di ko ndokkeel di ko ñaanal sëriñ Papa maa ngi lay ziyaare bu baax di la sant bu baax yow it sa taxawaay ak sa jàpp ci noonu te lépp di Sëriñ Tuubaa rek noo ngi lay gërëm bu baax a baax Sëriñ ak saa mi doon jàngit noo ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal bii waxtaan nañ lu yàgg ca kër Sëriñ Cheikh mi ci taxawaay yeeg liggéey bi di nuy jàngatu xasaa yi di fi nekk yépp ko jaare sëñ Ousseynou sëñ Ousseynou Guèye bu ko defee mu jàllaleel ma ko ci bokk yi fi nekk yëpp di leen sant bu baax nag ci jataay bu am solo bii di ñaan yàlla ñu yàgg ko fekke te lépp loo xam ne euh, liggéey nañ ko ci jëf nañ ko ci rek suñu borom nangu ko barke Xaadimu Rasuul ni ko sëñ laat sëñ raat introduire wax ju am solo xam naa solo na ma ci lu jiitu bu yàgg di wax ne dafa bëgg nu waxtaane jëmmi tukki géej gi ñu tànn ci ay bunt waxtaane ko am ci it ay taxaw seetlu lu am solo la lu mu ci seetlu bi màggalu Tuubaa gi jub see waa Hizbut Tarqiyyah sëñ Lamine dañ ma woo ngir nu waxtaanee diggante ndakaaru ak garam basam xam nga diggante bu yàgg la ndax la vingt 21 la ba bala 3 octobre xam nga yàgg na waaye dañ dañ koy gàttal garam basam it ñu bari dañuy wax sëñ Tuubaa dafa jaar jàll te sëñ Tuubaa def na fa ñaar fukki fan ndax la la 3 la fa ñëw bala 23 octobre xam nga yooyu diggante nag te yu ci nekk bari yu fay xew di ko fàttaliku di ko di ko topp di ko gëstu lu am solo la ndax bu lu doon loolu jëmmi lii nu nekk ba tal ko duñ ko tal kon jàmm ji nu am mooy liggéey bi sëñ Tuubaa liggéey ndam la it lu mat di mat fàttaliku ndax doy na ca di ko waxtaane sëñ Tuubaa bis bi mu liggéeyale ji yonent bi sallallahu alayhi wa boobu la santaane ñu di ko ci sant la yàlla kon bëggul kenn fàtte loolu bëgg nañu di ko waxtaanee di ko dund euh, te it mu defe ko ci defe yin woo xam ne bu nu ko nettalee waxtaanee ko nun ñëpp di ko dund du yam rek ci bëgg gi ñu koy bëgg waaye dafa am lu muy suuxat suñu xol ndax Serigne Touba mboolem yu nit di bëgg yëpp bu royee ci aw doxiinam te dund sëñ bi yëpp dafay daje ci moom. maanaam ku bëgg a nekk nit ku mat ci fànn yépp dangay dund sëñ Touba ndax sëñ Touba dafa complété ci mbooleem makaarimul axlaax yëpp benn rek dajewu ci ci moom waaye bu ci nekk boo ca tànn rek sëñ bi daf ko daf ko peeg liggéeyam bu réy bii nag di liggéey boo xam ne ci la amee ndam lu yaatu li mu am waaye suñu borom moo ko mu ca moom xam nga dafa am sababu zahir am sababu baatin bu ne sababu zahir ak sababu baatin mooy dunne rek sëriñ Touba dafa xëy dajeeg tubaab yi liggéeyal yonent bi wala tubaab yi yóbbu ko ci zahir niñ koy waxee waaye dafa fekk ne dafa am ay asbaab bi ci jëkk bu dee dafay baatin borom bi moo ko namm ci Serigne Touba. nga xam ne dafa am lu mu yor daraja ju rëy maqaama mu tedd mu yaatu mu ne ci suñ boroom te dara daraja jooju suñ borom du ko maye du ko sarxe du ko dénkaane du ko able daf koy jaay te lim koy jaaye ab noflaay nekku ci lépp ay nattu la ak i coono ak i tiis daraja jooju nag ñu baax ñépp xemmeem nañu ko waaye ku ko dëgmal bu ñu la gaaralee la ca nekk ci ak njëkk ak la ca nekk ci ay coona nga dellu ginnaaw ku ñëw rek àkk ko ngir taar ba ca nekk ak mat ga rafet ga bu ñu la gaaralee la ca tax a jot nga xam ne dangay fekk ñu bind ca wala yunaalu illa bi bala'in min a'zamil balwa loolu nga cay fekk li muy taaru taaru kat li muy rafet rafet kat dee su ci jot mukk lu dul la gën a tar te gën a tiis te gën a metti ci ay nattu kon loola mooy mbil ma mooy kon kenn du ci jot cam na fly ñi yàlla may tawfiix may leen xol yu leer te ñu bokk ci awliyaa ullah yi ñoom xam nañu ne lii suñ borom doon wane ku ci bëgg a jot kenn nanguwu ko sëñ Tuubaa rek ku ko jël te ñett yooyu sëñ Tuubaa tënkal na ko bu dee ci batin wax na leen sababu xaybati an allaha araada an anala minhu jaaha kon yàlla moo nam fa moom sëñ Tuubaa am ca moom daraja an anala minhu jaaha boobu mooy bi ci jëkk ba ca toppoon akuna shafian li qawmi mooy nekk kuy ràmm aw xeetam waaye ba ca ñetteel wa nakuna xaadiman fi mi nga xam ne day nekk liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa boo xam ne dafay sax nga xam ne diiru àddunaa ngi fi day continuer te sëñ Tuubaa sax waxul adduna liggéey gi muy liggéey yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu nekk lu sax dafa ñaan boroomam na ko bu ëllëgee yowmal xiyaamatul akbar ba jaam ñëpp suñu borom atte leen ñi jëm ajana jëm ajana ña jëm feneen jëm feneen ña nekk ci seen kër yi àjjana di noppalu man sëñ Touba nag ma defal yow yàlla bu ma nekk sama kër di noppalu waaye naa bokk ca ñay ne ci rasulullahi di ko liggéeyal nga xam ne kon moom day continuer bu nit ñi tabbee àjjana di noppalu sëñ Touba day wéy ca àjjana di liggéeyal yonent bi wajjaal li bi jaahihi mi man yaqdimunahu fil janna kon yow yàlla nag ma def ci darajee rasulullahi ma bokk ca ñay liggéeyal yonent bi ëllëg ci àjjana kon sëñ Touba moom àjjana yi kese taxu ko woon jóg egg àjjana it rekki say takkaay ko koon a jóg waaye dafay continuer ba mu eggee ëllëg sax mu wéy di liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon moo sabab li tax Serigne Touba jóg ngir liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag suñ boroom teg ko ci ay nattu fi ne tukkib géej gi benn la ci nattu yi day bi ci gën a fés ndax dafa metti te sëñ bi rek defal ko boppam nga xam ne nattu yépp toll na ci ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom te bu ci nekk sunu boroom nee na ko du nattub wàlliyu waaye nattub yonent lay doon nga xam ne fukki wàlliyu ak juróom la ñuy jël jël benn nattu teg leen te duñu ko attan nga xam ne yooyee nag lañuy dajale ba muy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñu teg ko Sëñ Tuubaa ba noppi tegal ko ci ay condition nag mooy suñ borom dane ko ñi fi jiitu woon kat may naa leen ku yanu boo sonnee yenni ko boo dàccee bàyyi boo tiitee ñaan bu la neexee mënatoo dem it nga ne doyal naa mënatumaa dem bu diisee it sañ ngaa woote sakku ndimbal yow nag Ahmadou Bamba boo xasee yanu yan bii li gën a néew ci daw mayinu la ko muy raf rafet rek doo ko def la ci toppit saa yu la ak dégg jamee nga gaññ wala nga yëg ci sa xol ne metti na yemuñu ci xàcc njëg gi waaye dañ ciy boole alag la duñu yem ci alag la yi dañuy alag ñi nga àndal boo gisee waxi sëñ Moussa Ka di wax ne yan ban yenoon xut bu yàgg ab daal yi te ëtt nuñ ko moo ko yan raw gaaña dëngañ ji way tewatul balaaya tewatul balaaya mooy conséquences yi ne ci biir yëf yi yàlla dana ko yow mayuma la nga jàmbat te loolu dana feeñ ci biir waxtaan wi ci béréb yi nga xam ne ci la suñu borom def mu nekk li ñu tuddee fastes test ci la yàlla jëkk natt sëñ bi ci loolu ba xam dana réussir ci loolu wala du ci loolu kon sëñ Touba léegi bi mu jógee mooy mooy leader bi nga xam ne l'islam moom la tànn yàlla tànn ko jiital ko ngir lan mu taxawalal ko diine maanaam fi mu fekkoon lislaam yàlla dafa tànn sañ tubaa ngir mu taxawalal ko allahu qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqiima mabla diinihi lmahdum kon mooy tegtale ne fekkoon na diine ji ñu màbb ko ndax woote bi tubaab yi defe naa bu bokkul ci yi mujj woote woote bu rëy la bu ma woon AOF juróom-ñetti réew la woon ci mois de juillet woote boobu boolewuñ ci sëñ Tuubaa fekk na booba tàggat nañ ko njox muttee yar ko ci ak soxor ak bañ diine ak bañ nit ku ñuul ba ñu leen convoqué muy juróom-ñetti réew yooyu nga xam ne ci la Côte d'Ivoire Mali senegal dëkk yooyu bokkoon moo nekkoon aweef keroog bi tubaab yi demee bi bi mag ñu wujjee booba tubaab bi dañu leen waxoon ñu bàyyi joxe asaka di fay lempo yi sàngara ñu walla bala ko ci diine ji jigéen ñi moom seen bopp yooyu yëpp tëraloon nañ ko ña gàntal la leen ca fekk fekk leen ci ñu teg fa ay tuuma sëñ Touba ci wane ne du ñëw sëñ Touba wuy siwul tubaab bi wane ñëpp waaye Ahmadou Bamba dikkul moo waral ci mois de août sëñ Touba bind leetar jox ko maam Thierno Birahim ngir mu yóbbu ko ndar ndax mois de mars la sant la sant ci Mbacké Bari mars avril mai juin juillet août mu yónnee leetar bi tubaab bi yóbbu ko borom daaru yóbbu ko it ko sëñ Touba fekk na booba. sëñ bi nekk dëkk bi ñu wax Mbacke Bari xam nga dafa def parcours bu bu gàtt rek diggante Mbacke Kajoor diggante Mbacke Bawal Mbacke Bawal ñaari at weesuwu ko Cheikh Ibrahima Fall tax mu jóge fa ndax nanguwul ku jiite sëñ Touba julli ku taxaw ci sappe si mu dal ci sa kaw ku ko jiitu mu a ñàkk xam meeb la sànni sëñ bi sañ ci Daaru Salaam ci Desassine di 1304 bi mu sañcee Daaru Salaam. dafa ñaari at wasasin sëñ bi jël dëkk bi may ko maam Cheikh Anta Gaawaan boole koog juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent sëñ bi bi muy sañ ci Touba fukk ak juróom-benn la àndal wala fukk ak juróom-ñaar mu ñëw sañ ci Touba fii jumaa ji nekk tey sëñ bi sañ ko tudde ko Touba fii jumaa ji nekk moo nekkoon kër sëñ Touba. nga xam ne fii lu ko denc tey wax ne di mandarga ne fi lañ denc sëñ bi fi la Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ganee jamono moom Cheikhul Khadim sëñ bi ne foofu def ay xalawaat nga xam ne mbaarum ngeer ak dóor-dóorum ngeer la fi sëñ Tuubaa defoon mag ñi wax nañ ne bu fatoo ci biir duñ gis ku fa dugg indi lekk wala naan booba toll dem nañ ba lim bi egg ci fanweer ak juróom-ñeent sëñ bay jiite sikar booba xasaa yi di ni koy jàng tàmbaleegul ndax booba sëñ bi li ëpp ci yi muy taalif day jëm ci tawxid ak fiq ak tasawuf ndax yenn xasida yi am daax yi lu ci ëpp day tàmbali Touba comme bi mu tàmbalee xoqa Daaru Salaam ñëw tàmbali nag Touba mu tàmbale fa mawaahi boog def fa euh, yi mu taalif lu mel ni ta iya ra iya miimi ya noonu yooyu ay xasida Touba yi la mu tàmbali nag di sikar nga xam ne bu sikar jotee mooy génn dëbbe bu ju di jotee mu nodd ba noppi liqaab di yu mag ñi nag naan leen jumaa ji gën a rëy ci sowu jant fii lay nekk booba loolu la daan wax man te boobu mbaarum ngeer a fi nekk egg ci di leen wax ne diggante fii ak fi suñ borom di taxawale sa ëllëg jëru soli dal fi ñu woote penc ma ëllëg jëru soli dal kon xam na te ay mbir yu xóota ngi ci biir ci diggante boobu yoo xam ne de su ko wax ci kaw waaye béréb la bopp buñ ko tuddoon tey rek ne nangam la yenn gaa yi dof sax lañuy def te mooy fi sëñ bi nekk tey moo tax mas naa ànd ak sëñ Balla Fally Dieng ak ñenn ci mag ñi ñëw ba toll fii ñu ko def tey sëñ bi wax na yàllaay xakiim bu ko neexoon di denc di jaxasoog nit ñi di wopp di wér di bëgg lu mu am te bu noppee wàcc bi liggéey fii lañ ko def junju na loolu ba tey daana waxi ne yàlla bu doonoon jëmm di ndox ci kaw suuf bis bu noppee nekk fii lañ koy denc mooy foofu ñu ko def mu màndargaalal ko boppam ci ay ay bant ak xamtukaay ginnaaw bi mu sañ sañc daarul xudduus bi mu sañcee daarul xudduus ab diir mu sañc daarul rahmaan daarul rahmaan mooy kër sëriñ Chouaïb moom lañuy wax daarul naar sañc daarul minan mooy kër sëriñ Bachir di yendu fii di ñëw nag di fanaan si ba ci bay sësin di 1312 mu dugg xalwa ci jàkkee daarul xudduus gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga du foofu la jëkk a gisee yonent bi ginaa waxoon na ca Mbàkke Kajoor shafaha ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi rabbi asabaka bi limma mu shafaha mooy tuñante kon gisante woon nag moom waaye gisante googa nag gisante indi ordre la yonent bi dañ ko jox ndigal mu ñëw lii nag sëñ Tuubaa dafa engagé njëlbeenu koor bay sasin la dugg xalwa yonent bi ñëw ànd ak ahlu badrin gépp fekk sëñ Tuubaa ci jàkk ci sëñ bi nee na maa ngi koy séen waaye mënuma ko laal bi ma ko bëggee jox loxo dane ma suñu diggante egg na ci boo jëloon feppi suuf yëpp nos ko péricrous lu tax ñu jote kon am na def distance bu sori diggante sëñ Tuubaa ak yonente bi ci njëlbéenu weeru kooru bay session sëñ bi sóobuwaat nag notaat bakkanam continué waat ci ay xalawaatam bi laylatul qadr gi di ñëw bi yonent bi ñëwaat sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee ak sëñ Tuubaa seen ñaari woom dafa sësante ñoom ñaar bi laa xijaabin wala maania dara doxul diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nag ñëw ëndaale médaille bu rëy proposé ko ko na ko nag ah ëndaaleel naa la dara ju màgg de ndax seet naa ne xuddaam yëpp yaa ma ci gënal kon nag bisi ngi tey bëgg naa ñu nommer la ngay xut bu zamaan yilif jamono jëpp xam kon bu ñu wax borom xam-xam bu mel ni sëñ Tuubaa ne ci réew mi naan suñu boroom xam-xam yi ak wàllu xut bu laa la wax ma xamam xut bu zamaan ak ruudu juddu te tagguwu la ruudu faatu te dara du am te yëguloo ko ñu tànnal ko loxoy sëñ Tuubaa na ko yonent bi na ko cadeau bii laa indaaleel tey bég gi ma bég ci yow daal nomee nañ dangay ngay bu zamaan sëñ bi nangu ko taf ci dënnam ne ko jërëjëf lu baax a ngi nii tey tey nga moom jamono kat neex na waaye am na lu ma ko dàq xoolal bii gis-gis bu rëy li sëñ bi jublu mooy sëñ Tuubaa moo bëggut a sol rapiti kenn maanaam mbubb mu naan solo lañ ko diw solal ko sëñ bi la sëñ bi bëggul sëñ bi dafa bëgg a yor ay dogi boppam yooyu dafay yam ci moom te keneen kon ko sol mu sëmbërtal ci yow te bu solee maqamam diw sàngam diw nangam loolu kon yem na moo tax sëñ mu Ka jàngal lu ci sëñ Tuubaa ci yooyu melo sëñ bi mu ne ko kon loo bëgg mu ne ko na ñàpp rek ci sa ci yow bokk sa gaañ yi ku la tudd tudd ma troisième position daal laa bëgg bu ñu nee yàlla na rasul nay na Ahmadou Bamba te xoolal li ci distance distance bi ci ay aqtaab ak i abdaal ak i gaa yi yàlla sëñ bi na ko lii rek laa bëgg mu ne ko lu jafee ngoog bu doon lu ñuy jaayee ci bakkan kat faat na ndax laa ikraha fi diin xatabàyyi na rusu minal xëy islam amatul force jeex na sëñ bi na ko loolu rek laa bëgg nee na ba ma naagu ci ne du ci jot mu ne ma lu ñuy jaay la de waaye ku ma sa dugg ci njëg gi de boo ca sóoboo bu ñu la dimbalewut danga nga alku mu ne ko lu mu mën a doon jaral na bakkan bi ruugi laa sëkkul waaye sama jom may na ma duma ma dellu ginnaaw mukk loolu ma sëf danaa ko yem kon loolu tubaab bi bu jàppee ne moo jàpp sëñ bi mu ngi ci erreur loolu nekk batin ñu signal sëñ Tuubaa buur yàlla signé jox yeneen ba ñu signé gaa yi jiital Bamba mu wari je mu mu wari soil booba sëñ Mbàkke sëñ bu sóobee nee na sëñ Tuubaa bu bëggoonu nit du génn Tuubaa booba Tuubaa mënoo for bant ci diggante Daaru Xudoos sa jumaa ji ak Daaru Minan mag ñi dañ koy lay ba mu set wicc kole gi mujj wari bi muy lal der bi mag ñi di ko xëccoo da ko xëccal boppam na bàyyi leen sama der bi bis na na ñëw danaa ko tàllal foofu kenn ci yéen du fa ne ba di ma ko laal donc mi ngi leen di junj ne korik déwén buy ñëw feneen lay nekk sëñ Touba wari dem mbakki Bari ci mois de mars war a doon suwaal muy aw kori yàggu fa juróomi weer benn yoon la fi ñëwaat Touba ñëwaat na Touba muy bi sëñ bu soo bi génnee adduna nijaayam ñëw na jaal si ko mbakki bi mu ko jaalee tàggu na bokk yi nag wax leen liggéey bu rëy bu mu engagé tukki bu sori buy bëgg a def fekk daana duggloo xaloo mag ñi ñu mel ni sëñ Daaru Assane Ndiaye di ko xoolloo ba xam mu naan ko tukki bu sori waaye sëriñ bu bu doon bu neex bu war a ñëw bi sëñ bi nekkee Mbacke bari ceddo yi tàmbali nag am lu ñu gis ndax lu ñu gis mooy sëñ Touba mii ak mbooloom mi bari gii ñu bari am nañ lenn luñ nam mooy ñëw nangu suñ suuf yi suuf sii lañ bëgg a nangu loolu rek a tax seen mbooloo yu bari yi nii nu leen gise ak nguur rek lañuy ñuy wut fekk sëriñ bu soobee nee na ko woon jolof jërte dem kenn du fa jàmbase te ku fa xaale toj wala ko xool jolof daal kenn du fa jombase te ko fa xaale toj ndax nañ mel bi sëñ Tuubaa ñëwee nag nekk fa ñu jàpp ne Cheikh Omar Fouti Tall wala Maba Jaxu Ba wala Ahmadou Cheikhou wala Mouhamadou Lamine Dramé ndax Mouhamadou Lamine Dramé bi muy attaqué tubaab bi am na juróomi junni bi ñu jàppee sëñ bi nag nañ ñi kii kat yuy yoon la jël fekk na sëñ bi loolu moom taxu ko jóg. ay yoon nag tubaab bi yónnee ci moom di ko convoqué ndax bul fàtte mois de juillet ba daje ban daje woon waxoon nañu Ahmadou Bamba du ñëw da leen a ba lettre ya baree nag ci la Serigne Touba yabal maam Thierno Birahim lettre bu daw yaram boo xam ne li ko laltaay ci fit ak ngor mu ne su ko misaal maa ngi lay nuyu la ko wax di ko wax ne ko li la tax a jóg ci àdduna awma ci yitte te li ma tax a jëm ci àllaaxira amoo ci dara ku ne la kenn ma tax a jóg ku may yàlla ak roy rasulullahi wax ju yàqu rek la bul déglu nag yàqkat yi ak narkat yi ak ñi nga xam ne seen bakkan rek la ñuy topp daan na ko li nga nekk awma ci soxla li ma nekk amoo ci soxla waaye jëggal naa leen yéen ñii ak ñi la wër loolu la suñu tubaab bind ci lettre ba jox ko maam Cerno bi daayam muy wax set ndax maa du ut la dajal borom daaru dem ndar ba mu demee wone fa lu yéeme wone fa ngor ak jom ak fit ndax booba góor góornóor ñeme koo xool rek kenn du ko def sëñ Tuubaa nee na jamono boobu ku gis ab tubaab day jàpp ne malaaka la gis borom daaru tàllal góornóor sénélar leetar bi góor nóor jël palaat tàllal ko maam Cerno ndax bañ a teganteeg moom loxo ndax ñu laayub loxo bi na ko teg ko fii borom daru bankat lettre am na ko ki ma yónni sa loxo ak sama loxo la wax ni ma bañee rek ne laa la bañe nga xam ne góornóor keroog dafa jaaxle na ko daal kii moom woor na ma ne ca moom la bàyyi ko mais woo nañ ko ay yoon ñëwut borom daru naa gisuma ko fa ñëw de waaye wóor na ma ne ku ko woo dana ñëw tubaab bi fekk booba 9 août kin mujj faat faat nañ ko 10 août ñu joxe ordre 250 SPI 4000 cartouches na nañ jëli Ahmadou Bamba ordre boobu lañ amoon Leclerc jiite ko moo nekkoon gouverneur bu Leclerc moo nekkoon Louga te moom Merlin ay goro lañ mais dañoo bañ sëñ bi ba loolu amee ñu def télégramme li tax tubaab bi dajeeg sëñ tubaab jeewal mooy jeewal campement la booba ñu def escale pour di xaar suba ak 15 heures wala 2 heures 14 heures lañ waxoon Ahmadou Bamba bu ñu fekk siwul Louga. dëkk buñ ko fekk danañ taal dëkk ba danañ rey donga jàpp sëñ bi indi benn buy dund ba am faatu ordre boobu la soldaar yi jotoo ba noppi nag di def ay laxas ngir bëgg maam Thierno yeexa dem pour la lii borom daaru ñu di ko nëbbutu di ko réeral yu bari neexute na ci léegi waaye bi ko tubaab bi mu ñëwee ci tubaab bi di wax moom pour confirmer ne sëñ tubaab dana ñëw waa demoon ci archive nationale barki dem rek gis naa ko tubaab bi dafa wax ne nun li ñu jaaxal ci dajab Cerno Ibra Faty bi mooy booba dañoo tànn juróom benn soldaar yu ñëw di xupp borom daaru maanaam fi mu taxaw ñu di ko jéem a napp li ñuy wax noggutu nee na borom daaru muuñ tubaab bi ba léegi doo demee dafa mandargal loolu ne muuñ mi borom daaru muuñ yaa quelque chose maanaam muuñum cerno mi du ñu xam lu mu doon ba léegi ba jusqu'à présent moo ñu xam lan la muuñ mi borom daaru doon muuñ lu mu doon ñoom daal dañ ne yaa quelque chose rek am na lu ko tax a li tax mu muñ xamuñu ko mu ne leen li ma wax keroog tubaab bi wax ju ñàkk kersa sax mi ngi koy wax borom daal ci bu ñëwul fii suba daal li nga wax bu dañee nàngam nangam mu daal di muuñ rek topp lëndëm gi di tegtalu yàlla siy taw xiin wi dënnu yi guddi googu muy ñëw suñ tubaab bi mu jullee gee ba noppi moo toogal boppam ci ci buntu jàkka ci njabootu suñ tubaab gépp wër ko booba mbakki bari mbooloo mi bari nañ ba bu ñuy séddale reer waxtu timis la ñuy tàmbali ba fajar ñépp nag gorom sëñ Tuubaa toog di waxtaan ak ñoom di wax ci gaa yu baax yi kum tudd tudd keneen kum tudd tudd keneen ba yàgg mu ne ñoo kenn du taxaw moom sëñ Tuubaa baat boobu la mujj a wax 9 août julli gee fatu taw julli gee ba noppi wax ko ajjuma mu fatu danañ ñoo kenn taxaw daan na sama borom dafay indi yan bopp kenn mësu ko ne jàkk mu romb say wóom noonu ko waxee sama borom dafay indi yan bopp kenn mësu ko ne jàkk mu romb say waaye man Ahmadu danaa ne ko dënkul ba àdduna bépp seen ko danaa ne ko dënkul. xam ne kenn du ko ko yan moo koy jajul boppam na ko dënkul yanu di wéy loolu la wax fatu maam na ne ci taw beeg bi mu jullisee fajar ba noppi nag laaj borom daaru di ñu génne ci jàkk ji la maam Cerno ak si borom daaru tàmbali di ko nettali da koo lëng mu di ko nettali mu tapp tappal ko ne ko bul ma yàggal Cerno damaa yàkkamti bul ma yàggal bi mu jubee kër gi bi mu génnee ci jàkka yi mbakki bari yi jëm ci kër gi jibril moo wàcc ci diggante sëñ Tuubaa kër gi na ko ahmadu digg bi jot na digg bi jot na sëkk wàccaa yu yàgg na laxasul te jóg sëñ Tuubaa na laa ilaha illa allah muhammadun arsalahul ilahu daan na ma waajal cerno borom daaru di nett li mu ne ko dara mutumaa wax cerno démb ca ngoon ba nga taxaw ak tubaab yi ak ceddoya ca détti mbéerub jàngi ba ca Louga mooy fañ ko doon nappe te borom daaru di muuñ sëñ Tuubaa ne ko fa nga taxawoon démb ca ngoon xorondoom yi doon yéeg sa tànk yi maa ngi fii ci Mbàkke Bari di jàkkaarloog ñoom yoral ma donga yi rek ak foo ma leen mën a yoral ka nekk Mbàkke Bari seen xorondoom yi yéeg tànk ca Louga kooku xam na fa mu jëm daal di takk lu awnullaahi yenn bagage dañ ko jaarale ca ginnaaw kër ga penc mi fees sëñ Modou Moustapha toll ci juróom-ñeenti at sëñ Fallu juróom-ñeenti at sëñ Baara juróomi at Sidi Mouhamad soxna Fatou Jabi di taaw mbooloo mépp na fee ñu jaarale yenn bagage yi ci ginnaaw sëñ Tuubaa takk loo awnullahi teg ca mbalaanum son yi dégal yu weex tal ni xaalis wala aluminium sëñ bi na tegg tànk bi jël loxo bi teg ci bopp Cheikh Moustapha jàng aslaf ci alquran na ko dénk naa la yàlla ak seen bay Cerno wax ko Cheikh Madul Fadal na gees borom daaru na ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na am jom daan la wëriñ dëgmal awnullahi boobu war ko daan dëgmal nag wuti yoonu melax ngir fan la jëm war a daje gaañi gaañi départ ñoom it sëñ Tuubaa fajaru sëriñ Musaa Ka radiyallaahu taala anhu nettali nañu ko bisub keroog la daam rañaane baari fajaru gaaw ba mahal abraari dajeeg tubaab ba dal di yendu jeewal fanaan fa bóor ne rëy ko siiwal gaaw boobu yoor yoor la sëñ Tuubaa agsi jeewal tubaab bi booba sëñ bi am na ñu mu àndal booba ki yen woon gaal yi bari nañ waaye bu dee ci ñi sant Mbakke euh, mooy sëñ euh, way juru sëñ Modou Balla Joor moo yenu woon gaal yi moom la woon sëñ bi nag ku ma mën a yenu sama gaal yi sëñ Balla Joor sëñ Balla Joor Mbakke na ko mën naa ko sëñ bi nag ku ko yenu du tàggoo ko njàpp te du ko yenneku keroog bi mu teggee gaal gi rek daru bopp bi dafa teggee ko mu yenoo ko Mbakke bari ak diisaayu gaal gi ak njàpp mi mu àndal jëm si jeewal béréb bu yéemee ngi noonu li sëñ raat wax dëgg la buñ ko mbëbës sël ndax jeewal mooy badar jeewal mooy badar bu badar bu badar esegoon lislaam jeex bu sëñ Tuubaa esegoon jeewal lislaam jeex kon booba juróom-ñetti réew yi am ci Afrique muy AOF diine du fi am chrétien moo fiy dox ñu changé suñuy culture ab sëriñ du am alxuraan duñ ko fi jàng loolu mooy badar ñaari mbër a song sëñ Tuubaa jeewal nee na bi sama maaru jëg fas fi ne tell ci kaw iblis laa jëkk seen muy xawee ko sa Ibnu Karim Touré la ko nettali na ko iblis laa seen muy xawee ko di wax ne mbër mu fi yàlla ma sa yónni jëraloo ma jóg dama yabal suq yi rek waaye kii kenn doyu ma ci saa bopp nee maa koy songal sa bopp sëñ bi nee ma nit ma di ko joxar bi ne ko yàlla rek am doy sama diggante yow doxale naa yàlla sama diggante yow hasbunallahu wa ni'mal wakiil sëñ bi nee na ma séen ko muy arrière ne xar muy dañ di dellu ginnaaw di deltu ginnaaw ne xar muy dañ maanaam du jëm élan nee na ba ne samay tànk falax na det mën a ci dog xam nii mu ne wóoy ca kaw dama teggil nu tàggoo léegi tànk yu ma mës a dugg yaa ci gën a sewle waaye yaa gën a dëgërle booy tegg nuy tàggoo ayesa minnillahu inde jeewali iblisa isnaadaytuhu biyaawali inna alladi maha liqaa jeewali lahu nidaan muuqinan biyaawali naajaytuhu biya nasiru yaawali kafaytini iblisa inde jeewali booba inna waliya la alladi nazala alkitab wa huwa yatawalla salihin na sëñ Tuubaa doon wér sëñ Moussa Ka nee na maam Cerno ko ko wax booba loolu sëñ bi wér jox ko ci doggu tab bi ci xur wi soldaar yi wër ko ba ñuul kuk seen fetal soqiku seen mbubb yu këkk yi ak seen xongaay yi mbub yaram wa rek fas yu wàcc ci mbartal mi sëñ bi cëppeelu sànnib daram na allahu akbar tubaab yëpp kontaan daan na lii mu mën a daa nekk mbakke bari rek wét fa waaye bu nu gisee xam nga ne dellu naw joxe nay loxoom nee na maa ngi nii xamuñu koy julli sax jàpp nañ ne sëñ bi day day négocier ñu ne voilà victoire am na sëñ bi kàbbar allahu akbar foofu ahlu badrin feeñ na fi te déggaat naa Cheikh Abdou Samad si champs bi nekk ko mais bi muy jàppal takkusaan tey massa tubaab yi ñëw bëgg ko bëmax tasanteeg muy ëññi kaala gi muy def nii moo tasanteeg ahlu badrin gépp di cercle jeewal loolu dégg naa ko sëñ Abdou Samad ci màggal gi bi ñu introsé sëñ bi wàcc ci xur yu julli di sëlmal ba julli la ko soob Leclerc moo jëkk ñëw mooy xaa idu jeysh waaxu ñëw na sëñ bi dañoo jot ndigal bul yenn bul fanaan ordre bi mooy lu mu guddi guddi nga fanaani ndar sëñ bi naa cam ka leen jox ndigal day kama sàkk sàkk ko digal ma ma di ko jaamu mu lànk ma di ko jaamu moo ma jox ndigalu naa fanaan xool ak bii risqué ñaar téeméeri soldaar ak juróom fukk yooyu ñeenti junniy kërtus kenn ku lay wetti néew fa ku dul yow kañ en la lu yàgg ci mois de juillet denc en bi góornóor jël si la boppam ñu ne la jógal mu ne julli takkusaan jot nee ba ba ba ma séenaatee Leclerc waa xuut si ma damaa dumóoyu jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na mu nooy nepp sawara wi doon tàkk ci moom fay mu ne rëmm giif na ma noonga lay déglu saa yoo la soobee bisub keroog la daam fanaani baari rañaane baari fajari gaaw bu maaxal la dajeeg tubaab ba daal di yendu jeewal fanaan fa boo dee rëy na duñ ko siiwal nee na keroog la njëkk a gis ahlu badar ba mu xëyee suba dibéer la ñu ko daj keroog la way asma ahlu badrin booleeg muqaddamat bi nasti bu rëy bi nasti kon sëñ Tuubaa fanaan lay def léegi ku ne doo yendu ngay fanaan masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jëy chichir ñu won ko fa mbooleem lay xaloo xew ba dem tuubaa mënoon naa wàññi koo foofee waaye ne kon du am mayeem yi mu am boole jaroo lay Serigne Touba nee na bu ko neexoon jeewal lay dëppee xam ne gañe naa mu fanaan samedi ci guddi ba fajari dibéer ji sëñ bi leen fëggal boppam foofee nag la Jibril ñëw jàpp ci nosub fasu Serigne Touba wi di ko wambat mu tàmbali asmaa ahlu badrin foofu yi am na kilifa gu baax ci réew mi ko yàlla mayu cër yónnee ne ci Serigne Touba jox ko bataaxal. bind ci ay muslaay na ko nee ko na koy ñaan dana tax a mucc turi ahlu badrin ya ci nekk sëñ bi ne ko tàmbali naa ko te ku ne ñëw na fi man na ma maay diw diwoo ma jur diwoo ma jur ci ahlu badrin laa bokk ma tàmbali na sol boobu asmaa ahlu mu ne bañ waxee loolu xew mu far wóolalanteeg yàlla jaayante ay biram xaloo jaju yan boobee te woon bëri yëway tuuba xaloo jaju jaju yan boobee te woon bëri yëway tuuba mu jiital boroomam ahlu badrin di wéttalam mu def sopp yonen muy la koy nos mu jëm tuubaa mu foofu alquran def gën ji gànnaay ga muy saxoo te def tagg yonen muy jihaaram ja xew Touba yii la sëñ Touba yóbbaloo def ko mu di gànnaayam war nag jiitu te li gën a yéeme fasam a gën a gaaw seeni fas mujj ñu naan ko defal ndànk booba yi la koy womat mu ne leen ku yónnee di ko woolu ñenn yónnee nu ñuy gën a yeexe ci ki ñuy woolu gaaw leen te li gën a yéeme ci bu yàggul rek xamaat naa ne fanaanug jeewal gi ndeke ñaar la baatin bi mooy sëñ bi napp gi leen na leen damay fanaan mooy jaayir si rek ne leen damay fanaan waaye jëm jëmmi sëñ bi nee na fas yi ci boppam ñoo ne dañ ñoo dawale dañ ñoo dawale ndar sonal nu andi nu te bu nu dëppaatee léegi faatu lañuy def noppal nu mu ne day fanaan fas yi xam nañ ne moom laa la dañuy fanaan fanaan rek sëñ bi la day fanaan moo ko tax a fanaan yërmande jee yaatu sëñ bi jóge fa jëm kokki yendu ju liggéey topp guddi gi nee na booba yàlla saa ngi taw di dal ay dox may dem mel ni kon te kenn bi mu fa jógee xam nga bi mu ñëwee kokki def na fa lu yéeme bi muy dem ci armée li dana képp ku mënta nuyoo ñu fay la rek bu ma topp koo xam ne bu nuyoo ci armeel yi du ñu la fayee doo ko dégg bul ma topp xam loolu yombul mu ñëw ci dëkk bii tey di Louga 12 août di alterné léegi kon ñoom foo fausité nañ le 10 te le 12 ñëw na sëñ Touba yendu Louga bi mu yendoo xam ngeen ne bokk yépp njàmbur gépp ñëw nañ ne ko nañ fetal jihaad tub sëñ bi ne leen noo leen bëgg a xeexee ñoom ñu ne ko ah, yor nañ ay maq doom ak ay fetal ak ay jeese ak ay nangam ak nangam sëñ bi li ngeen di xeexee ñu ko defar ñu ne ñoom mu ne nit nu muy defee rek gànnaay nga man ko ca walu diggéej la dana mokk te dara du yëngu bàyyi leen ba ñëw rek gis nga noonu boo demee gaar ba gis nga ko foofu mu nekkoon boo demee fee ñu tegoon téere yi dénkoon ko sañ sëñ Baara Fati Mbodj ak sëñ Mad Lamine Gueye Firdawsi ñaari kàngamam yooyu ak ñeneen julli takkusaan dugg saxaar mag ñi waroon a yéeg ñëpp ñu bàyyi leen sëñ Modou Lamine Gueye moom sëñ Bara Fati Mbodj moom bi ñu gisee saxaar gi déqi rek dañoo jàppante loxo kenn ku ne sa waay kaay ñu jàppante loxo dox tuuti ba génn gaar bi bi sëñ Touba di boo demee yaakaar naa mi ngi ci mawlud samaan sax mu sawari xulan baar léegi kooku yooyu ñaari taalibe bi luñ doon xam nga sëñ bu ko neexoon dëpp sëñ bi ñëw ndar 12 août waxtu timis laak si waaye def na fa 38 jours ndar la sëñ bi gën a yàgg 38 jours la sëñ Tuubaa def ndar bi mu ñëwee xam ngeen ne tubaab bi daf ko daal di yóbbu jole ko pour xëy war koo woo sëñ Tuubaa ci ndar dafa bari xew-xew yu fa am yoo xam ne yu yéeme la bi si jëkk mooy gaynde gii ñuy wax ndar la woon am na ci gabon it waaye genn gu njëkk gi moom ci jardin dese muy toolu buur fala fala fala amee woon mooy signature bii gaañi bañoon loolu moo indi numéro 4 xam nga dañ naan numéro 4 numéro 4 sëñ Touba ko woo da doon sobee sëñ Touba dafa ñëw tubaab yi daje génne war rapport bii ñu génne woon ci na ngeen signé bàyyi nangam nangam ñett ña jëkk a lànk tubaab yi ne leen am nañ fi gaynde yu xiif yu gëj a lekk ay fan boo leen signé ñu yóbbu leen ñu ne duñ signé de jàpp kenn yóbbu gaynde nga lekk jàpp keneen mu ñaar ba muy ñett seen Tuubaa na bu ma jugut ñu jeex moo jug taxaw ca kanam na maa ci topp teg ma ci nee na li tax ma jóg bu ma seetaanoon ñëpp jeex bu ma jëkkoon a jóg dul man ci man dara ñu ne ñëpp a ma bàyyi ba ñenn dem xam ne duma ma seen moroom ma muccal ñi ci des xam nga fi ne bu sëñ Tuubaa jëkkoon a jóg danaan keneen comme laaloo nit noonu lay def ma bàyyi ba ñett dem ñett dem xam na gaynde gi lekk na xam na ña de si ñëpp jeex lañuy ñuy def 83 yëpp nar a jeex sañ bi jóg taxaw looloo indi numéro 4 ñu tàbbal ko ci biir kaaf gi sëñ Touba wax sëñ am sëtu jaxate na ko bisu keroog de ni may yeex a xamee ne gaynde la sax ni may yeex a xamee ne gaynde la daan na ko keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf maa dar ci dënnam naan ma sama xarit nga mbégte mooma ma jàpp ba ma gestoo laa door a xam ne ndeke gaynde ngi fi te xoola ba muy bind ca mille euh, trois cent onze ca Touba wa man takun bi rasulullahi nusratuhu in talqaw usd fi ajamia ba booba ñu loolu amagul ba muy am dogug naan ku daje gaynde ci digg man te ànd ak rasulullahi gaynde ga nooy booba yonent bi ñëwagul def daje seeg moom sëñ bi ci lool ba lool amee rek kon wa man takun bi rasulullahi xidmatuhu musaahiba siddiq wal ixlaas wal xasan fala yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqaayatu tugni an likinan ak fala yulaaxi siwal bushra walam yohin ñu jële fa sëñ Touba yóbbu ko to léegi bi loolu amee mboolem kilifa yi ndar yépp dajaloo ñëw na tubaab bi kii ngeen jàpp deful dara da ko tegi tuuma rek bàyyi leen ko ñu ne bind leen signé kenn ku nekk ñaan intervention boo leen demee mu signé ñu libéré ko. sëñ Amadou Ndiaye maa béyee ko jiite sëñ Amadou Ndiaye maa béy di woon murid sëñ Amadou Ndiaye maa béy jiite délégation bi dem ci tubaab yi pare waa nar imaam yeeg ulama yeeg gars yëpp signé ba mu des benn signataire muy sëñ Touba sëñ Amadou Ndiaye maa béy neen damaa fekk sëñ Touba dina fi de ma ñëw nuyoo toog bu ne asalaamaaleykum ma jege si rek mu ne allahu akbar ba julli la ko soob nag gees na ma kooku ma ne ko Amadou Ndiaye maa béy mu ne bismillah ma ñëw mu ne mu ne ma loo doon dox ma ne ko noonu de Mbàkke dañoo xam dañ laa tooñ dem nañ ci tubaab bi nag ñaan ko ba nangu na ne boo mandargaay lay fii rek nu dem mu bàyyi la sëñ bi na dënd ba yàgg mu ne ko ana ku nu tooñ nu nuy demee naan ko na ñëw jéggalu ko ko tooñ daal na ko Ahmadou Ndiaye maa bi si Ahmadou Ndiaye maa bi keroog daa xaqataay ci kanam sëñ Tuubaa ca kaw sëñ bi ne ko Ahmadou Ndiaye maa bi yoonu géej gi maa ko ñaanoon sa borom daal dina yëkkat der bi mu taxoon di julli der bi sëñ Tuubaa doon jullee loolu ko si Ahmadou Ndiaye maa bi netti leen boppam der bi mu doon jullee la sëñ bi ne yëkkit rocc ci aslëf ci ay kayit na ko jàmb sëñ Ahmadou Ndiaye Mabéye fekk ci tàmbali asiru ma al abrari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru bi nabi na ko ko jàbb na ko Ahmadou géej gi liggéeyub géej gi maa ko ñaanoon sama borom sëñ Ahmadou Ndiaye Mabéye jël ñaari kayit yi mu ne ko yaay sama la yam déedéet sëñ Ahmadou Ndiaye Mabéye ne ñokket bay tolloo bunt bi mu ne ko te feeg may dellu si doo fi wopp doo fi faatu kii dem batale sëñ Ahmadou Ndiaye maa bi yóbbu ay kayitam denc sëñ Touba desaat ndar tubaab bi desaat leneen convoqué waat kilifa yépp muy darñel bi pour ñu bàyyi yii ñuy def baa ñu faagaa faagaagal leen ñu jeex takk moo tax sëñ Abdourahmane Mbakkeem Cheikh Abdoul Khoudous moom borom Daaru Muxti waxoon ne sëñ Touba huwa alqadimu imamuna wa rajauna lawlaahu kaana suudukal maadum sëñ Touba sunu yaakaar bu dul loolu moom nit ku ñuul du tekki dara sëñ tubaa moo tax nit ki ñuul représenté dara wal karaamatu wal faqaaru wal jamaalu bii disaas aswadul maadum sax titre tedd nga honneur nit ki ñuul mooy sëñ Tuubaa ci moom la nit ku ñuul teddoo te lii feeñ na ci kanam ñu dajale ñëpp sëñ Tuubaa mujj a ñëw ku fa toog toog yi ni kuy julli ngay toog danga nga naan rab jël sab sikkin daaj ci sab dënn doo siggi doo xool boroom xaftaan bu jekk ba te gën a rafet boroom xaftaan bi ñu doon wax léegi. am na sëñ Moussa Ka ne da daan sol da daan sol yetti kaala da daan muur yor yetti kaala yu joor raawaan